24 point net l'information à sa juste valeur si si point sa mbokk Abdou Aziz. Abdou Aziz sama xarit suma doomu ndey koy ñaanal jàmm di ko jaare soxnaam si nga xam ne soxna la suñu xarit la suñu jigéen bu baax la woon. yàlla soxnaam ko dem ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla na ko yàlla defal jàmm jëlee ko ci aljana fi daw si ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla aljana doon wàcc waayam barke barke bi barke barke mboolem jullit ci barke tànk yàlla na ko yàlla defal jàmm Abdou Aziz suma xarit la suma frère la suma conseiller la ñoo fekk ñu ñu ñu jaajëfal moom maa ko yokkee ñu boobu service gën a fort. tey gis nañ ñëpp taxawaay bi ginnaaw Abdoul Aziz bokk ay waaw suñu xarit ñoom lii la ak ñoom ak ñoom saa ko wala Sénégal lépp benn la xool seen mbir mi ak ak Balla Gaye ñu mën a xool bu ñu amee wala Sénégal yaa ngeen jëf sunugal24.net l'information à sa juste valeur c'est ici